asalaamaaleykum bokki jullit yi ñoo ngi leen di ndokkeel ci weeru tabaski wi rawatina fukki fan yu tedd yi nga xam ne suñu borom nee na moo ko gënal ci at mi waaye di ci leeral la rek yow mu tarwiit ak yow mu arafata réew mu ne bis ba nga gisee sa weer ci ngay tàmbali kon Sénégal altine la wi feeñ benn fanu altine la benn fanu altine boobu nag boo ko doonee bu bis mooy yow mu tarwiiti yow mu tarwiyati mooy bis bi ñuy waajal aj nit ñi ne woon Makka ak Madina ak yëpp dem Minan ngir waajal arafa ñu di ko tuddee yow mu tarwiyati di bu baax woor waaye nag dëgg dëgg arafa nag mooy talaata ci nun waa Sénégal mooy juróom-ñeenteelu fan ci tabaski nga xam ne dañoo bëgg lool ku ci ñaan ndax yàlla da ci nangu ñaan loolu nag Makka def ko altine taxul Sénégal jàpp ne mooy seen arafa ndax Makka seen weer daa fi ñoon ca dimanche moo tax ñoom ñu def seen yow ma arafata altine kon bul bul buy wër la rek ba mu tolloog màkka def nañ ko bi mu tolloog noonu nu def ko kon nun sun bis ci sun yow ma arafata li wér wóor mooy talaata lay doon mardi bu ñëwee suba la tabaski ndax àllarba lay tabaski kon sun yow ma arafata nun waa Sénégal nañ xam ne talaata lay doon kooku mën a woor nga woor ko te bari loo ci jaamu yàlla lool ak loo ciy tudd yàlla ci bari ay takk allahu akbar ak laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir salaam salaam waxoon na ne maag yonent yi waxuñ ci bis bi lu gën lii bëggoon na lool ko ci bari looy wax loolu loo ci jàngal ku ci jàngal xuraan julli ci yonent bi waaye di wax laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun laa yamuutu bi yadihil khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir bis boo xam ne suñu borom loo ci def ci lu baax da koy yokk fay la lu baree baree bari benn boo def mu fay la junni mbaa du ko ëpp boo jéggaloo mu jéggal la boo ñaanee mu may la yow maa rafata boo ko wooree suñu borom da lay jéggal bàkkaar yi nga defoon ci at mi nga weesu ak at mi nga jëm kon ñu ngi koy fàttali bokk yëpp. ñun yaakaar sëñ Tuubaa nag sëriñ bi dafa noonu ñaanu yow maa rafata xamdan li man akmala yow maa rafa danaa ko andi ñëpp man cee jariñu li ci desit mooy ñaari xasida yooyu mu tënke waskurullaha fi ayaamin maadudatin fanit tabaski yëpp la baax a wax waaye yow maa rafata moo ci raw ak bisu tabaski bi. muy wajjatu kulliya za xurbin min allaahi ak wajjatu wacciya za xurbin min allaahi dégg nga sax sëriñ bi di wax ne eh, bis ñu di ko jàng ci kanamam ba agsi benn bayit bi mu ne sama borom may na ko ci bayit bi ku jàng xasida gi ba agsi ci baamu ko ñetti yoon eggale xasida gi suñ borom may na la yoolu aj guñ nangu ak umra guñ nangu loolu nag tekkiwul ne dane bul aji wala bul umra ci boo gàllankooroo ba mënoo dem boo ko defee am nga yool bi taxut koor taxut nag aj wàcc na waxtu woo ma ne aji ajil waaye nag am nga yool bi la wax waaye ni wut farata ji wàcc na la waaye nee na xaside gi boo ko jàngee beeg si bayit yi baamu ko ñetti yoon suñu borom may na la yoolu aj guñ nangu ak umra guñ nangu kon nag loolu lu mat a bàyyi xale ñëpp ñu di ko jàng ci fan yii rawatina yow ma xaside gi yassari lii mooy yassarul asir yi itam yow ma arafata lañ ko tënkee gis na ko ñaane ci bis bi